ça va ça va. yow maman lan moo tax yow munoo ayee rek jox nit ñu lekk rek mu gaaw rek mu rapide yow saay boo ayee balaa nit ñi di lekk fu ne la ñuy dugg. Hmm. bàyyi loolu baaxut. waaw ah, baax na man ngeen yëpp ana ñi si des. Khalil de ak Ousseyn moom génn nañu Nafi moom gisaguma ko ba ma xëyee ba te yaakaar naa mu ngi biir néegam génnagul. non non daa dem hôpital boppam moo métti. Hmm. dina dem hôpital kay kër goo xam ne salaamaaleykum maaleykum salaam xuloo guddi xuloo bëccëg. ci ko xamantene dafa amé migraine hôpital rek ngay dëkkee. gassé c'est qui c'est là Elle dit quoi Elle dit tout ça c'est pour moi. Hein? Mun hmm. eh, na hey way Samba. kii santé eh, yi. bye bi baa wul ki mun na la ba xam mburu mi yëpp pour mom kessa la. do doon am ci nit la. Ah, laaj na la ko. <laughs> eh do fo jinne japp la lépp lu wax xam nga ko dégg nga lang yëpp way way bi waa yàlla gudd fan waay amiin amiin man xam-xam kessé la la la wax hmm? naka jékki kéro bi muy egsi ci kër gi di dérapé hmm? ma ubbi buntu bi mané ko jakk la xamné ko ne dul dulkat la appétit kessé la àndaale ki maa ngi doon wax sax na fi lay bok ak ay tubay mo bullu ko mom mën ta bok ak bullu ko ak ki tubay parce que bullu ko amul appétit hmm? ki ana mbay lay bokal ay grand boobu ana mbay man eh bi ba xam nga luma lay xamal yow régler sa pecc dé ah. yow yaangi bëgg ëppal dé parce que ah. maa ngi rek ngeen di wax di talal yow yaayam yéen a siis ta bon yéen lii bëru mburu muy wax rek ngeen di ngafi ngafi ku ne ubbi sa làmmiñ waa ndax da leen a jomb xamoo leen ko hmm. kii lekk ba suur lañu xam suñu kër te léegi dinaa xamal ko fi wax lu ko loo ko war ta wax man ak yéen yéen a bon te siis osé eh waxal dëgg laa la wax sa rakk ji nga war a wax dëgg yow sa rakk ji ne da nga kaa bëgg a gëmloo ne mburu mi yëpp pour moom la est ce que di nga ko mën a continuer hmm. mën koo dundal dëkk bi dafa metti est ce que yaa ngi may hmm. gi na xam fu mu ko jëmale eh, Gansé e il e, e, a dit quoi. loo waa. eh ma wuy ma wuy ma. tàng ma lay raam ji xam nga lu mu xam. Mhm. Fara olof yëpp xam nga lu mu ci xam. Mhm. loo waa boo naa la yaa gën a xam li ma la dégg nga olof. wan. xaaf. waay. Eh, Gansé. tout tout xaaf. ñoom. xaaf. Four, half. Five, c'est pour papa Moussa. Le, c'est qui papa Moussa? Le petit chalet de la maison, le, le, le petit enfant de la maison, mon mon C'est la première. Yo, sa français takk day nga fa pour la la. Waaw. Xam ou yo? Eh, eh, ma. xam nga yow léegi sama xarit nga wa ngi dégg damay wa waa déglu ma rek damay bañ nga ne mala saga mo moo lak français bi noko comprendre comprendre nga waye man xamna bu baax li may wax comprendre nga wa léegi nak le soir car de la claire et net eh wax ko wala balaa ma kaa wax loo bàyyi ma wax ko lu gën a leer nous mangez nous maman réew nga de yow da nga dégg ne ñun ay dëmm lañ wala bañ leen di manger yow kii bu doon manger waate yéen motoo leen ko sax ndékki te dañ njëkk tey nag mujj tey nag nga ñuy tam affaire dëmm yaa may dégg

Tá bom. É, tá bom, só tá <laughs> junior boy man wax naa la instant bi mooy loolu non non yaa wax da nga ñëw ba ma dem ba jën ataay ba teg ñi gisuma non non man man maa ñëw parce que instant sama tante nekk fi waaye yow yaa gën a xam booy loo màgg màgg parents yi mënoo màgg seen kanam. non sincèrement moom mën maa ñëw quoi bu nekkee mën nga ñëw rek nga ñëw waaw la demee tey ok baax na ci kanam mais tànn bu ndaw yaa ngi féexlu da bëgg a fay ñàngal ak yooyu tamit. su ko yow tànta bu tànta mënoo yem ci tànta bi rek. ah bu ndaw bi moo lay dérange. waaw ah léegi tànta bu mag. damay sangu gisoo ma nii. yow nag da ngaa ñaax kersa loolu moo tax duma sawlu ñu taxaw yow wa kay waxuma loolu de Paa Moussa yow démb gisoo leen sen gan gi de gan fa la ñoom gan fii ci kër waaw sa tante Osé mhm. mu fi indi rakam bo xamante ne ñag la ya, taxaw tante Osé kañ la nek ñag bayam am rakku ñag eh man xaw ma ba xam mom xaw xawma de en tout cas dal kooku ci dëkk ñag yi la jógee bañ na ko ba français ñag lay làkk du làkk olof li ma si gën tiital na gis nga démb ba mu egsi bismillah egsi rek moo jiitu ci reer ma daa lekka lekka lekk ba ma tiit ñu pare moo dugg ci waañ ba dóor la fa nekkoon lépp lépp taxaw di xaar leneen. yow xam naa yoon bi moom metti rek. n'empêche man moom nga dëgg de parce que man démb ci biir reerewu ma si kër gi. waaye li ngay wax ni yow da ngay kaf la. kaf moo tax gisoo ko <laughs> nga foog fa la yem mu xëyati tey si suba teel toj kër gi. ma tegal ko cent franc mburu xale bi ne du ko laal kilo ak cent franc lay ndékkee ma dem ci sa tante ose wax ko mu ne ma suñu famille lekk ba suur lañ xam. waaw yow xale nan lay bañee cent franc mburu te yow kan nga doon defal ndékki. man dama mujj obligé wàcc dem jëndiwaat mburu ñëw tegal ko. gis bu ndaw da baax. yow lan ngay demee di ko jëndal mburu di ko dolli. Ah, duma ko def. su ma waxee ñu ne damaa clamé wala damaa nettal wala damaa bari histoire moo tax léegi maanu laay def taxawaay taxawaay. alafaar waaw taxaw aussi ñun ñoom seen famille loolu lañ xam léegi moom pourquoi mun ko a ah, xaw ma de léegi nag bu sa tante ñëwee bu wax ko ko que man maman moo fi wax wala moom laay bañ loolu daal laay bañ bu nag yow <laughs> nga moytu ko de bi de boo ko gisee na mu toy. la lëf ngande gi mu ngande bopp bu rëy loxo yi reuy tanki yi xotti nag ni malka da ngaa mën a nak est-ce que ñu ko pour muy garde tamit kooku mën na nek gardien de ndax na bari gi mom lepp ma reuy da ci baax sa parfois ma ànd moom ci koñu ñu mën ko man ne li lay wax man damaa bëgg tooñ nga bëgg a tayle sa life koku de bu yeboo bul xaritoog mom su la nekkaa ñu attaaya dawal da waxuma lu door de xam nga ñagi ñom dañuy nakari de waxuma lu door de mais ni rek raay <laughs> raay rek mo yow de nga bu yóbboo bul xaritoo mom de dawal gis nga tante bu ndaw man bala kenn dima conseil li mo jott wax ni may conseil sam bopp yaa ngi école fool bi nekk ci koñ fini fii fa laay dem inscrire sam bopp chaque ngone ma dem fa kooku duma tegg ba hi yaay yaay ya, de daw sa ba ngay ami tank ndax instant bi keur gi da mok rumbax toj la def ku nekk di wër sa dam li ma lay seet yëpp ndekete yaa ngi fi toog lan ngay def néegu mayaatu. dama koy warta ñëw ku amul jàmm sa néeg bi nga dëkk nga dem si néegu yeneen jéegi toog fa. li ngay wax waxuma ko sama añ anamu. sa añ man ayaw ma demal nga laaj ko aye nga demal si ko aye nga laaj ko sa añ man ndékki laa aye te fegal naa defal naa ndékk ci suba bi baa moo aye togg añ dama nga laaj ko sa añ. man dama sama morom ah bii baa ay ak loolu lijjantiwuma ko même bu bii ayee yow nga nekk sama jabar demal nga laaj ko ko mu jox la ko et yow maman wax réewande yi ngay waxee man pour lan la. xoolal Khalil fii waxu réewande ak waxu ku yaru amu fi en plus man dangaa jaawale nit yi. yow maman yow man sa lan la hmm. ah? xaw ma sama lan nga. yow digënté jëkër ak jabar bu ñu amee problème ci yoon ku jigen ki moy wacc waaw parce que jigen mom à chaque fois tu crois que nañoo wara soumise bu ngeen joggé def lu leen neex wax lu leen neex après ñëw taxana ñun ñoo wara lan wacc gis nga li ngay wax ni waxuma eh déglu moom baax la wax man duma ma sa moroma du liggéey kër kër ci nag bam ñëwaat wacc war fi fekk nga tegal ma sama añ nga naan ma kii moo aye kee moo aye may wax nga may jaay réew. maa ngi yëg ci kaw gis nga sama añ na ma fa fekk daar daar ok yaa ngi dégg. da jaawale nit yi de day man rek yow kudd sax doo ko gis bay xaar ay toogal nag day man rek fii dina la ça va Ouzin yaa ngi toog waaw maman. ça va si jàmm ça va. Ouzin de xalil moo ma fi indi woon. waxu xalil. waaw waa jàmm la. jàmm la du jàmm parce que umpale woon na xalil temps yii mu ngi may ut. démb fekk na ma ci néeg bi di ma gaaroo aare ka xas waxatuñu muy osé di ma dóor tey mu ngi ma fekk néegu mayaatu di ma laaj añam ma ne ko man de tey ayaw ma ndékki laa ay parce que dañ ne ku fégal yaay aye ndékki léegi añ bi dangay dem laaj ko bi baax. rek Xalil commencé lu ne lu ne mu yàq ma ko lu ne mu wax ma ko ma ne nag balaa ñuy egg foo xamante ne mooy lool naa fi ñëw wax la ko parce que yaay magam gam Xalil su ma mënul a téye respecté ma jox ma cër bi ma moom dama bàyyi ma ñibbi suñu kër. déedéet maman tout ay affaire ñibbi suñu kër moom teg ko ci suuf. sa diggante Xalil da ngeen ni muñalante. te nit buy sëy da ngay fexe ka ngay sëyal nga xool si ay jikkoom nga comprendre ko muñul ko si jikko yooyu noonu te tey jii moment bu dul dara xaw nga yàgg ak Khalil te doo toog nag di ko muñal ba muy metti nga toog ba yàlla may ko lu mu jàpp nga bëgg a def say danga koy muñal te moment yow Khalil muñal na la daan nga ko gëdd di ko yuuxu te du si teg baat donc moom bu la ko defee jéemal xool lan moo nekk si ginnaaw wala lan moo ko metti nga jéem ko bàyyi parce que nit bu la mayee dara dem ba si biir nangu ko c'est parce que yow tamit am na loo ko may nangu ko jéem ko comprendre nga jéem a xool noo leen di retrouver wo ngeen nekk si jàmm parce que tey gënoon na metti mais tey yàlla def na mu ngi jeex donc ay affaire damay dem suñu kër damay ñibbi loolu tekk ci suuf bàyyil man dinaa waxtaan ak moom animu moom. léegi wool ma ko ma waxtaan ak moom walla euh, bàyyi ko hmm. bàyyi ko. waaw yaana ça noo def bàyyi ngi si jàmm alhamdulilah noo leen def naka sam papa alhamdulilah waaw yaa nag dama la wowoon nag dama bëggoon nga ñëw fi xaw ma ndax da nga jàpp wala déet mais bu fekkee defoo dara daal nga ñëw fii ma am lu ñu waxtaane non jàmm la rek jàmm la tuuti daal jàmm la du jàmm mais boo mënee ñëw daal après nga am quelque kii yoo fi mën a régler rek ñëwal balaa muy ëpp loxo vu njaboot gi moom tey yow yaa fi nekk suñu yaay ak mère ba voilà ñëwal maa ngi lay xaar baax na jërëjëf. maa ay Aïda cosmétique moo leen doon may seen série awo bi